بسم الله الرحمن الرحيم عن علي كرم الله وجهه ورضي عنه jëlee nañ ci sayduna ali yal na yàlla dolli teraangaay kanamam te gërëm ko qaala wax na ne qaala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallama ki tedd ku tedd ki yàlla yebal ko ci nit ak jinne yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallama wax na ne ida taqaadaa ilayka rajulaani su ñaari waay dikkee ci yow ngir nga xàtte leen fala taqdi lil awwali bul atte ñeel ku njëkk ki xatta tasmaa bata nga déggee kalaama laaxiri waxi keneen ki fa ci loolu sawfa tadri ngay xala xamee kayfa taqdi naka ngay atte su ñaari waay dikkee ci yow ngir nga atte leen bul dégg waxi kenn rek atte déglul ñaar ñëpp ci ngay mën a xam kana wax dëgg ak kana wax lu gënaaw yoon qaala caliyun sayidna caliyun karama allahu wajhahu wa radiya anhu wax ne fa ma ziltu dañu ma qaadiyan di atte baadu gannaaw ga maanaam depuis ma dégg li yonentu sallallahu alayhi wa sallam wax dañu ma di attee noonu moo tax lu ma mu jub rawahu ahmadu imam ahmad solo hadis ji wa abu daawuda wa tirmidi wa xasanahu tam rafetal ko wa qawaahu dëgëral ko ibnu almadini wa saxaahu wéral ko ibnu xibaan bu eh, ahmad dana dikk tara makaana tadri fa sawfa tara xals nga xam xals nga gis bu dee abu daawud am na fa innahu mu dikk ca fa innahu ahra an yatabayyana laka alqada ana soo defee noonu ci la atte leer ñeel la fa innahu naka loolu ahra moo gën a yee an yatabayyana bir laka ñeel la alqadaaw atte ba yokk na ca njëlbeen nga inna allaha sa yahdi qalbaka yàlla dana jubal sa xol bon wa yuthabbit lisaanaka dana saxal sa làmmiñ hadis ja na yoon yu bare bare lim ñuy jàngal mbokk yi moo xam attekat yi la walla ñun ñi nga xam ne duñ ay attekat saa yu ñu xabaar dikkalee nañ ceey nit dana dikk rek ne la dégg nga diw def gis nga lima diw wax dégg nga li ma diw wax gis nga li ma diw def dégg nga li li ñu wax ne nangam ak nangam fekk dégluwuloo keneen ki nga daal di commenté def nga musiba ku la mën a wax dara ci diw ak ku mën a do boo amul ñaari version yi bul bul jugé boo defee rek àdduna tukki sa xarit nag dana la tawatal jëkkëtam mbaa mu tawatal la jabaram mbaa tawatal la xaritam mbaa mu tawatal la doomam tawatal la àndandoom mbaa baayam mbaa yaayam mbaa jàmbur rekk nga daal di commenter ngir ne wóolu nga ko wala ngir ne bëgguloo mu mer wala bëgg nga ko gërëmloo te borom nag nee na wallahu wa rasuluhu axaqu te yonentu sallallahu alayhi wa sallam nee na amul dara lu mën a yóbbu nit ñi safara lu mel ni làmmiñ yal na ñu yàlla teel suñ làmmiñ yi ba duñ wax lu dul jub teel ñu suñ bët ba duñ xool lu dul mbaax teel ñu suñ xol yi ba duñ ca fas lu dul yiw yal na ñu yàlla ma yàlla yaa rabbi hada wa sallallahu wa sallallahu ala sayidina muhammadin wa alihi xaqa qadrihi wa miqdaarihi al-aziim